mbër gàlle yaay yaay mbër gàlle yaay yaay su guddee fooy yaay mbër gàlle yaay mbër fanaan Euh, lan ngay wax axlu làmb balaa nga wax ak axlu làmb euh, combat Balla Gaye ak Bombardier wax nañ ci ba pare mais ci arbitre bi Sitor ak ni mu arbitre combat bi sénégalais yu bëri d'accordu ñu avant Sitor sax damay dal ci waa CNG Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier dañoo dagg seen xaalis yu bëri te du yoon ci wàllu làmb Balla Gaye liñ dagg ci moom contre Bombardier du yoon du yoon bu fekkee CNG dañoo osé wu ne joxe nañ jël bi bombardier kon avertissement yi nga xam ne moo topp ci avant site bi compté wut erreur arbitre la mais du ar erreur mbër yi avant jële bi di am ñaata avertissement la joxe ci ginnaawam ku ci nekk jël na ci trois avertissement trois avertissement yi ci lañ dagg Balla Gaye delloo bu six millions dagg ci boobu. pour cent la. waaw trois avertissement yi quinze quinze pour cent la. waaw loolu la règlement bi wax. trois avertissement yu nekk 15 pour cent lañ la dagg. waaw les 15 pour cent yi ko dagg. ci ginnaaw avertissement bi lañ ko dagg kon bu fekkee joxe nañ jël bi kon jël ba mooy compter léegi awur jël ba du erreur u Balla de du erreur u Bombardier erreur u waa CNG la ndax ñoo fa teg si toor kon ñëy seen xaalis bu ñu bu ñu osé ba jox euh, Bombardier victoire am nañu osé génne seen xaalis boole ko victoire ba jox delloo leen ko. loolu lay a yoon. 33 accompagnant la Balla bu nekk 30 000 la bu bu ne 30 000 francs lañ lay dagg. waaw ba pare ak heure bi heure bi heure bi. 59 minutes de retard. xam nga tey presque une heure de xam nga tey ji loolu nga wax noonu yëpp boo ko génnee 50 bu nekkoon 30 pour cent sax àggul 1 million. dama ne nañu na CNG day jot tey jii ñuy génn di wax ak sénégalais yi man li ma jaaxal mbër yi am na ku leen di dagg. promoteurs yi am na ku ku ñuy wax ak ñoom waa axlu làmb journalistes yi chaque jour ngeen dégg CNG wala mbëri ñu ngi leen di sanctionné waaye tey jii damaa jaaxal arbitre bi nga xam ne tey jii mooy yàq làmb kan moo koy sanctionné. da ngaa mës a gis arbitre CNG bu sanctionné arbitre mës nga koo gis sanctionné mës CNG CNG mës naa sanctionné njabootam non nañ waxtaan ci wàllu làmb CNG bi ñu ngi yàq làmb ji tey ji ak lépp lu métti métti làmb ju mag gi bu amee. ba jàll ñu dagg ci xaalis bu toll nii ci wàllu làmb war nañoo mën a woo ak làmb ne ah lii de nii lañ ko defee nii nii lañ ko defee nii nii lañ ko defee article CNG nag ñun saa yu ñu xëy bu làmb amee problème rek la ñuy xam ne seen CNG amoon na article sàngam amul benn article boo xam ne nii waa làmb maîtriser nañ ko mais nag li may gën a wax mbëri rek chaque jour sama wax ji rek day dikkaat dem leen ngeen uti ay avocat contrat wu millions yu bari yi ngeen di bëree dem leen ngeen signé ko ay avant ay avocat ak huissier de justice dina tax bu ëllëgee avocat boobu nga signé boo ëllëgee sa xaalis bu nekkee fenn moom dina mën a poursuivre pour mën a toppatoo sa xaalis fan la ko dugaloon ci nangam ak nangam ak nangam waaye tey jii boo bàyyi sa ménagère kese mu topp sa contrat wu làmb dem signé ko am na yoo xam ne bu ci àggee bu ko séntee àggee moom da koy gagné mais boo jëlee sa contrat yëpp nga dem signé ko sa avocat ak sa lépp boo ëllëgee balaa nit a lekk sa xaalis dina ko jaar dafa set loolu la am lu may wax axlu làmb ndax mbëri ñu ngi leen di bëgg a ñu ngi leen di bëgg a rey Balla Gaye de dagg nañ ko nangu naa ko Bombardier dagg nañ ko nangu naa ko waaye or or or or ndam li fu mu amee erreur arbitre la mais du erreur Balla Gaye de mais du erreur Bombardier nañ leen jox seen xaalis du yoon. kon kon kon kon daal erreur erreur bi erreur erreur la du erreur du ñaari mbër yow loolu nga jàpp. xoolal déggoo li ma lay wax déggoo li ma lay wax du erreur arbitre. du erreur du CNG du erreur du Balla Gaye de du erreur du yooyu yëpp waxuñ ko li ñuy wax mooy Bombardier jox nañ ko victoire am xaalisu Balla Gaye de bi ñu dagg ci ban yan yan pour cent lañ ko daggee moo dul yoon lan moo tax ñu dagg xaalisam 6 millions yu teg ci yan critère lañ ko daggee du yoon nañ nañu ci lii lañ ko daggee bu dee ah bu dee joxe nañ victoire bi Balla Gaye 2 avertissement yi mu jël o ba bañ bañ mën a yëkkati loxo Bombardier yooyu noonu bokkatut erreur arbitre la mais du erreur Balla Gaye 2 du erreur Bombardier nañ jël xaalisam ñu delloo ko ko. ba ci cinquième avertissement bi Balla Gaye 2 waroon a jël loolu tamit erreur arbitre la mais du arbitre erreur. gis nga dinaa la wax leen nga dégg ko il faut Gris Bordeaux jugaat ni mu war a jugee rek mooy mbër yi jot nañu xam seen gëdd ci wàllu làmb gis nga lii ma lay wax nii bu yóbbu nga bàyyi ko xel bu baax muy seen Senzo Bira Seno arbito promoteur journaliste soo ñoom ñëpp mbëri leen fi bàyyi ndax bu mbër bëriwut seen dara du dox jot nañu respecté mbër yi mais mbër yi cër yi ñu leen war a jox ci wàllu làmb joxuñ leen ko. Balla Gaye 2 mënta indi arène nationale feesal ko ba mu feesal dell ak lépp lu ci mënti am xaalisam nañ ko dagg ci ay conditions yoo xam ne moo normal mais seen xaalis conditions yi ñu ko daggee 6 millions yu teg ak dëkk bi fu mu toll. non loolu lu ñaaw la te mu CNG mënuñu laa génneel na la diw wax na ne lii ak lii ak condition bi ak condition bi lañ daggee xaalis jàmbur nañ ko génn wax ko am na loo xam daal fekk nit ñi juguñ ci kaas ci rek duñ ko nangoo def daal kañ la làmb di baax nit ñi dañuy bëgg di xam fan lañ jëm ci làmb fan lañ jëm ci wàllu làmb loolu dañ koy bëgg di xam. te loolu bokk na ci li indi violence ci làmb. keroog loolu mënoon naa indi lu ne ci làmb. xoolal Sitor. ku ñëpp tufi mu tooy li njëkkee wut ci diggante ak Bombardier ak Balla Gaye numéro 2. Sitor yàgg naa yàq làmb ba am na ay champion yu dégg daal yu nekk ci làmb nee nañ ko dootoo ñu arbitreel ci làmb dégg nañ ko fi ba tàyyi kon tey ji ak lépp lu métti métti métti métti métti CNG da ko war a teg ay daan moom CNG da ko war a teg ay daan dañ ne la munoo arbitre yàq combat bu mag bu toll nii CNG mën a at jël victoire jox ko Bombardier kon ñuy dagg xaalisu Balla Gaye dee yi ñu tax ñu koy dagg ci ay avertissement du yoon waruñoo dagg ay xaalisam ci avertissement. daal yow d'accord ci loolu. non du yoon nañ ko delloo xaalisam nañ ko delloo xaalisam. kon bu bu ma la déggee bu baax même bu sanction di am sax arbitre bi lañ war a sanction. xoolal bu sanction di am Sitor lañ war a aj Balla Gaye de dafa bëri ci Covid bëri ci Covid bëri ci lépp ñu aj combat bi ajati ko ajati ko. Bombardier bëri ci Covid ñu aj combat bi ajati ko ajati ko ak lépp lu mu métti métti métti métti lañ daj ci combat bi rek dafa doy sëkk nañ leen jox lu ñu moom. mais Yékini mi ci combat boobu nag. mën am lamba ma jeexagul rek. xam nga yaay yaay li weer. waaw dañ waaw non mais nag mais nag man man man man man xam nga tey jii dafa am loo xam ne nii. Euh, mën naa cee wax ci làmb. am na loo ne man moo mag ci làmb. man daal li ma xam ci Yaxya Jóob Yékini mooy il est li ma ci xam ci moom na gars yi jéem a def lim def ci làmb te yaakaar naa ne man Yékini làmbam jeex na Yékini làmbam dafa jeex garmi la ba mu waree bëre bëre na ba mu waree ñëw ci làmb ñëw na ci làmb ba mu daan ànd ak ay mbokkam daan ànd ak mbokk ci làmb mais ak lépp lu métti metti métti métti moo sañoon nañ wax leneen ba mu des ay waxu yàq yi ki ni ay waxu yàq ball Gaye de ay waxu yàq leneen nañu xool liy yokku làmb ñu wax nañu xool li nga xam ne mooy defar làmb ñu ne mooy actualité làmb Balla Gaye numéro 2 na préparé wu ci pour prochain combat am Bombardier am seen a koy xaar keneen ak keneen ak keneen mais ay affaire de diw moo yàq làmb diw moo def lii diw moo def lii man àgguma foofu. man nga ma ñëwul ci combat boobu Eumeu seen ak Bombardier. non. loolu. day yaatu loolu day wa day yaatu. loolu njaatin baay ñaari xale yi dañoo ragal ñu gaañante de. waaw waaw <laughs> li may def rek mooy euh, euh, di tàggu Sénégalais yëpp di leen ñaanal jàmm. démb nag dama fay wax benn wax ci sama page YouTube laa ko waxee ndax dama ne dafa am loo ne dama ko gis biir Pikine ma ne leen damay bañ bés ñëw ci làmb Ama balde bëreeg booy ñaa déglu leen bu baax li ma leen wax ñëpp di ci coow Fadam waroo koo wax waroo koo wax waroo koo wax ndax fa nga ko waxee baaxul ndax Pikine nag Pikine mbër yi dañoo war a nekk ci jàmb ku nekk di wax yéen waa Pikine déglu leen bu baax li ma leen di wax déglu leen bu baax li ma leen di wax dëkkuwaay bi gën a mag ci làmb Pikine ci la bokk. Pikine moo ëpp ay tonnerre ci làmb guddi yi ñu toll ñi nga xam ne ëllëg ñoo war a téye làmb bi ëllëg Pikine la champion yu gën a confirmé ci wàllu làmb guddi yi Pikine lañ dëkk Ama Baldé pikin la dëkk Boy Niang Pikine la dëkk doy na woy ci làmb ngir yàlla ak yeneen bi yéen ñi nga xam ne yéen encadré xale yi su faram demee ba mën a wax loolu du Ama Baldé du booy Niang waaye dimbale leen Pape Sarr ci liggéey bi muy liggéey ngeen jàppale xale yi encadrement bi encadré Boy Niang encadrement yi encadré Ama Baldé encadrement bi encadré Sokh encadrement bi encadré Eumeu Sène fexe leen ngeen toog seen biir dimbali Pape Sarr am na loo xam ne Pape Sarr mii dox 100 pour cent Pikine sax day dem ba day mal pour taxaw fenn dimbali leen ko lii ngeen di def nii taxul làmb Pikine dem ci kanam imaginel tey ji Ama Baldé ak Boy Niang ak Sokh ak keneen bu ñu tàggalikoo ñu dem ba kenn nekk roi des arènes bu fa xaalisu làmb duggee rek mën naa yàq lu bari waaye waa pikin kenn mënta dem ci làmb bàyyi Pikine kenn mënta dem ci làmb bàyyi as askanu yu gën a yaakaar ci wàllu làmb pikin lañ dëkk Ama Baldé ci kër Modou Lo wala mu ngi waaj woy Balla Gaye 2 wala mu ngi waaj a woy Yékini Eumeu Sène ñoom ñëpp seen wala la ngi waaj a woy espoir yi gën a yaakaar ci làmb Ama Baldé la ak Boy Niang kon ñooñu nañu fexe ñoom ñëpp ñu déggoo ci seen biir kenn bañ leen a jaxase ñu dimbale Pape Sarr mi nga xam ne ni tey jii bu Pikine di bëre da koy yërëm foofu rek la Fadam di waxee maa ngi jéggalu ñëpp di baalu àq ñépp di ñaanal ñëpp jàmm ci at mu bees mi di leen wax at mi lépp luñ ci bëgg rek yàlla leen ko yàlla defal ci daraj Seydina Muhammad asalaamaaleykum wa rahmatullah mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër ربنا